photo. papa noo tudd. Mohamed. Mohamed fan nga dëkk. police Thiaroye. Thiaroye ci fan. ah. Jumaay Sëñ Fallou. Jumaay Sëñ sa papa nu mu tudd. Abdou sa yaay nu mu tudd. Sagar kañ nga nekk ci mbedd mi. Ah. am nga jabar am nga soxna. amoo soxna am ngay doom ah. papa fan nga nekkoon. mu toog may dox dara dara dara. fan nga nekkoon. mënu may nga ne da nga amoon problème mu téléphone. waaw. ah. Colobane gi la nga jëndee téléphone. waaw ndaw bi mu ne 650 mille ko jëndee. mu ne 650 léegi nag. jàpp ma ñu ne ñu jàpp la ni la yaa sàcc téléphone bi. ma ne ma ne ma ne ma sàcc mu téléphone bi. ma téléphone bi euh, waa ji ma ko jaay. ñu ma noonu amul téléphone. yaa sàcc. ñun la yaay sàcc bi. waaw ñu tëj la quatre ans. quatre ans. fan lañ la tëjoon. cent mètres carré. cent mètres. Bettina Bettina Bettina Bettina. Oh. sa mbokk yi xamoon nañ ne dañ laa tëj papa lan nga dund ci biir kaso bi. lu metti lu metti loo ñu ci mën a wax. lu doy waar ñeenti atu yàlla sunu bàyyi dund ko ci biir kaso bi metti na trop. foofu nga jëlee tawatu tànk yi xanaa. avant tànk yi di metti daan nga dox. mën naa daw. daan nga daw. mënoon nga lu ne papa ñëwaatal ñu ci feebar bi nan la la dikkee ci biir kaso bi waaw ah lekk bon rek lekk bon rek lan ngeen fay lekk doy wax nga lañ la ba même pas un mois ñu jël la sanni la ci mbedd mi ndax am nga fo jëm waaw ndax euh, sa kër gi nga dëkk caaro yi ndax yow xam nga fa buñ la fa yóbboon di nga fa mëna dem waaw am nga fa ay mbokk han ah? amatoo kenn amoo fa kenn papa fatali ñu tur bi mohammed ndjay Mohamed Ndiaye ñëw Dakar fan nga dëkkoon fan nga jóge maa Ñombaajo. Euh, Ñombaato. fan la nekk ci réew yi ci dëkk yi. gannaaw Dramé baax na papa dinañ dinañ fi ñëw suba wala ginnaaw suba papa bul tur ronkoñ lan ngay dund ci mbedd mi jamono bi papa da jam rek jam rek ni ngay dundé ci mbedd mi ak ni nga dundé ci kasso bi ban mo ci tané ni nga dund ci mbedd mi mo tane fouf allahu akbar ban chambre lañ la tëjoon chambre chambre 1 fofu ñenti at yëpp fofu nga ko def waaw

ah. fan lañ wax ni moo ko mën a faj. ah da ngaa amee rhumatisme. loxo bi lu ci nekk. Ah.